salaamaaleykum euh, waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di suñu parti awale maanaam ànd wattu askan wi liggéeyal ëllëg muy parti bi nga xam ne dafa jox cër jigéen fas yéene awale jigéen ci yoon bu baax fas yéene teg jigéen ci yoon bu baax parti boobu tey moom moo leen di woo fas yéene sargal jigéen yi fas yéene sargal ay jigéenam. que nous sargal jigéenu Sénégal le 26 mars 2022 nous ci Rufisque ci jardin public bi ci programme bi dina commencer 15 h ba 19 h suñu président parti di docteur LH Hadj Diouf di ci wo Sénégal yépp di ci wo Sénégal yépp di ci wo jigéenu Afrique particulièrement au parti politique di ci woo tamit jigéenu awale yi nga xam ne moom la fa ñoom lañ fas yéene sargal donc ñu leen ci woo ñun ñu ñëpp di rafetlu seen teewaay te ñëwagul ci euh, jour boobu di wax ne jigéeni awale jigéenu Sénégal jigéenu Afrique dara jombuñu